mbokk yi déglu daleen ak jàmm Tiwaawan fi mu nekk nii nag mi ngi fees dell ki nit cuulikaay bii di Sud Quotidien moom moo ñu koy xamal ndaxte mi ngi ñuy wax ne li ko dalee euh, samedi euh, ba tey ji nag nit ñaa ngi jógee fu ne ngir ñëw teewee si euh, gàmm gi cuulikaay bii di Sud Quotidien du ñu xamal ne kon tey ci guddi dinañu daal di màggal gane àddina yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su naataango yi di ñëwaat nag ci wàllu gàmm googu ak tamit nañu koy amalee foofu nga xam ne moom mooy ci diwaanu Tiwaawan wante ñu ngi ñuy xamal ne ñi nga xam ne ñoom ñooy ci wàllu politique ñoom de seen tànk tamit bëri na foofu nga xam ne de moom mooy Tiwaawoon suñu naataango yi duñu xamal ne seen nañ fa ku ci mel ni Ousmane Sonko Idrissa Seck Thierno Alassane Sall ak tamit ki nga xam ne de moom mooy Oumar Sarr bu parti démocratique sénégalais wante ci biir colikaay bi di les échos suñu naataango yi ñu ngi ñuy xamal ne ku ci mel ni Idrissa Seck de démb moom daal dina ciy profité nag yëkk ay kàddu yu mel ni xeme ñi nga xam ne na ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi wante ba léegi ci biir colikaay bi di les échos suñu naataango yi duñ ci yokk duñu xamal ne ñii nga xam ne de ñoom ñooy waa parti démocratique sénégalais ñoom de léegi nee nañu daal li leen wóor ba wóor moom mooy ne xalif général des Tidiane daal féetewul fenn ndaxte moom ci boppam daal dina leen xamal ne Macky Sall xaritam la sax laata nag muy nekk njiitu réew te nee nag tey jii su fekkente ne nag nekk na njiitu réew moom mu nekk xalif général des Tidiane loolu dong doyoon na ngir mu far ci ginnaawam rax ci dolli moom daal dina xam ne am na ay taalibe ci parti yëpp kon kay moom dafa tëddee njaaxaanaay ci biir colikaay bi di l'observateur natango yi sax ñoo nga ñuy jottali kàddu yi nga xam ne nag Pape Malick na nag ci yenn ci ay xew-xew yi nga xam ne nag moom la ñu nemmeeku fii ci biir réew mi te du jëmale réew mi kanam ci biir ëccolikaay bii di yi di ñëwaat ci kàddu yi koy fësal jëmale ko nag ci tolluwaayu réew mi ndaxte moom la mu gis moom mooy daal ne suñu réew mi dafa dellu ginnaaw bu baax a baax te loolu nag ma nga cay joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xam ne daal ñoom ñooy yëngatu ci wàllu politique Alioune Ndiaye autolikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne moo nekkoon ganub émission bii di objection fii ci biir rajo Sud FM moom nag moom mooy ki euh, taxawal émission bi di le grand rendez-vous ñu koy nemmeeku ci benn télé fii ci biir réew mi daal di ne xam ne daal ne fu mu nekk ni moom lu tax suñu réew mi jëmul kanam mën nañu joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xam ne ñoom ñooy classe politique bi nga xam ne nag ñoom ñoo fi nekk ndaxte ñoom de mbirum politique dong de moom moo leen soxol wante nag fexe ba jëmale réew mi ci kanam daal waxuñu ci lenn. train express régional autolikaay bi di Le Soleil moo ñuy xamal daal ne nag raam bu njëkk bi njëkk si na nag fii ci biir di ko fa li nga xam ne nag moom mooy ca mool 2 de Dakar suñu naataango yi sax duñu xamal ne test yu njëkk yi moom dinañu ko amal euh, ci ndorteelu weeru novembre bi ñu euh, dëgmal ñoom la ñu gëm moom mooy daal ne jiixi jaaxa bu rëy am na nag ci boppu réew mi ndaxte fu mu nekk nii daal ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite fexe nañu daal ba daal diggantal liggéeyu ONG bii di Enda Lead Afrique culikaay bii di 24 du ñu xamal ne ONG boobu moom danaan faral di jébbal koppar gu takku ñi nga xam ne de ñoom ñooy waa yaanamar source a dañ ci yokk duñu xamal ne lu weesu ONG boobu tamit ñii di groupe Sénégal di dina ñuy jébbal ay mise en demeure ONG bii di ox Oxfam groupe Sénégal fi mu nekk nii dañ leen fas yéene liñatu ci lu jublu nag ci wàllu tension budgétaire maanaam daal ñàkkum koppar gi ñuy wax nag ne moom moo am fii ci biir réew mi autolikaay bi di l'exclusif mi ngi ñuy xamal daal ne ñëpp dañ cay joxoñ baaraamu ki nga xam ne de ah, moom mooy Amadou Ba moom fu mu nekk ni sax ma ngay merloo ñi nga xam ne la ñoo nekk fii ci bopp réew mi ndaxte la gis daal moom moo ne day xajamal seen ah, liggéey tey ji autolikaay bi di Vox Populi daal di def ab gëstu jëmale ko nag ci ñuy tuddee ay GP maanaam ñi nga xam ne dañuy jëlee ay ah, yóbbante fii ci biir réew mi di ko yóbbu ca bitim réew autolikaay bi di Vox Populi ñu nag liggéey boobu yàgg na ñi nga xam ne nag ñoom ñoo koy def yenn saay daal dañ ci faral nag di jànkonteel ak ay jafe-jafe ñoom sax ñoo ngi koy nettali ci biir culikaay bi suñu naataango yi di ñëwaat nag ci waa ñoom nag naka la ñu fas yéene taxawee eh, ci wàllu liggéey gi ni mel bi nga xam ne daal yàgg nañu ko amal fii ci biir réew mi dañu koy jeexalee ak wàllu tàggat yaram culikaay yi di record ak stade ñu ngay ñëwaat nag ci jongante bi réewum Sénégal doon amal ca Guinée équatoriale suñu gaynde yi nag daal di am ndam ci waa eh, Guinée équatoriale dugal benn bal wante la ñu nemmeeku moom mooy ne ci bés boobu kii di Sadio Mané euh, ba match ba jeexee da doon jooy ausolikaay bii di stade ak tamit record du ñu xamal de ñu sukkandikoo euh, ay kàddu ki nga xam ne de moom mooy Aliou Cissé euh, ki nga xam ne moom mooy Sadio Mané la mu bëggoon def yëpp ci biir match bi jotu ko doon def loolu nag moom moo tax ba kontaanul woon ci moom ba mu mujjee nag di jooy ñu yeexalee ko ak ausolikaay bii di sunu lamb ñu ngay ñëwaat nag ci mbéy géey léegi mi nga xam ne nag bokk na ci biir CNG bi mu seq ci waxtaan nag ak ausolikaay bii di sunu lamb la mu ca xamle daal moom mooy ne Matar Ba di joriñ gu ñu dénk wàllu tàggat yaram moom moo forcé nag ki nga xam ne de moom mooy Aliou Sarr loolu nag moom moo tax ba mu mujjee dugg ci biir CNG bi ndaxte kooku di Aliou Sarr buggul woon ñu yaatal kuréel gi ni mel lii moo nekkoon mbox julikat yi di gën a fës ci a julikat yi ñu ne di ñaanaan njeextalu ba sa jàmm